nga xam ni tey jii ñun ñii moo ñu bindal toqantal watal nandal ak feral na ko mag ñi daan defee ñenn ñi mu jàngal leen alquran tey kon ñi li alquran di wax wa saabiquuna ñi jitu ñoom ñooy jitu te nyom ñoo jitu fii ci gox bi ci walu xam-xam yor ko muy waa imam Mansour Ndaw ñoo nekk nii ñoom ñëpp ci ginnaaw yalla yalla yàlla leen suñu kanam taas ñu seen barke comme euh, siyaasiye yi nekk ci koñ bi muy Mouhamadou Mansour Diop ak Papa Sala Niang ak ñeneen buñ fi limee rek mbir mi yàqu buñ leen tuddee tudd nañu koñ bi yëpp buñu tuddee imaam yi tudd nañ ñëpp loolu du suñu wàll mooy kii def conférence bi muy imaam Alioune imaam Alioune xam ngeen ni doom la fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee damay wax ni bëri na imaam yoo xam ni fii ci taarixu koñ bi li ci mel ni imaam Alioune bëriwul maanaam day jàngal suñuy doom di jullee néew yi di ànd ak ñoom ci armeel yi di tudd doom yi di takk sëy yi te it am na ci loo xam ni lii jëm ci tem bi muy wàllu kóllëre dina ko gën a yaatal am na ay muskila ay ay ay problème yu bari yuy am ci koñ bi moom ak ñun ñii ak ñeneen ñu mel ni ñooy dox di ko dox guddi di ko dox bëccëg ba koñ bi mel ni ceroog soow loolu taxawaayu imaam Alioune la li ci ëpp balaa imaam Isaaxa lii bii di ñëw daan na taal motoom 4 heures du matin pour ñëw jiite si bii jàkk ji delluwaat kon di def loo xam ni ay ay mujaahid la mujaahidiin la sax mujaahidiin bu mag kóllëre nag buñ koy wax loolu tem boo xam ni yaatu gi xajul fii ak fa ñu jëm xam naa ku mel ni Papa Sala Ñang wala Sëriñ Mbay mii toog tudd nañu léegi rek laa ko wax imaam lii ndax léegi rek ci suba rek ñu ngi waxtaan Pape Sané Niang di wax imaam ñi bokk njëkk jiite ci jàkk ji muy imaam Ndiaye dëkkoon 39 fële ci kaw imam imaam Thiam imaam Sadali imam Moussa Ndaw mi nga xam ne nag moo gën a yàgg fii ci jal bi Euh, te it boole jàngal ay makaarimal axlaaq ay jikko yu rafet waa koñ bi ci yaru ci disponibilité ba mu egsi ci imaam kan egsi ci imaam Isaaxa lii mii kon ñiñ fi tëdd ñëpp kóllëre weesu na ko te koñ bi am na ci ñoo xam ni mag ñi nga xam ni ñoo ña ngànkoon jàkka ji ku mel ni góor gi Njaga Gay Ali Camara Euh, euh, Amad Ndiaye Pacteur góor gi Matar Diop Baye Ousmane Sène Papi Mansour Sène Mële Baye Waly Faye Buri 41 ñii ñooy mag ñi nga xam ni ñoo taxawal jàkk ji li ci ëpp min alsheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim inna alhamda lillahi nahmaduhu subhanahu wa taala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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكجلتي جنا بني سنتي سبحانه وتعالى تخوال مفيني أكو نبوي نيوانجي جلدي دي سلمل تي ينتبه عليه الصلاة والسلام مؤمنين قبل نيني مؤمنين قبل نيني moo ñi fekk ci lëndëm ak ñàkk xam yóbbuñu ci leerub xam-xam li yuxrija naas min azulamat ila nuur ñu ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di siyaare mbokk yi nga xam ne ñoo jël kàddu jàppale ñu lool ndax ñoom fi ñu jaar day tax ñun dootuñu fa mën a jaar di ñaan tabaaraka wa taala mbokk yooyu yal na yàlla fay leen ta taxawu leen mu ñu ma nag ñàkk tudd suma imam muy imam Isxaaq Ali di ko ñaanal di ko ziyaare jàngal na ma donte benn laaya nekk ku bëri xam-xam waaye ku dal waaye ku teey di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yéen gi yàlla na ko yàlla oyofal nat nattu la ci moom imaam Jéey maa ngi lay siyaare li gën a neex ci dund laa am bàyyi laay du mën weesu nga bokk koog cër say mag say xarit fuñ la gisee jox la lépp moom noonu la nekk ak man ba léegi ci tisbaar bi il fallait que ñun ñaar ñu xëccante ko ak suma frère pay ngir ñu bu ma ko mu mën a julli ku xam teraanga moo mën a joxe teraanga jërëjëf jéey gay gay yonent bi daa suñu maam sëñ Babacar dafa daan wax naan teraanga ñu koy pasante leketu teraanga ba lekket gi toj moo gën gay ñu koy njëkkante ba lekket gi toj kon nag teraanga gi gis ka day wër ba leket gi tot lolo am ci jàkk ci ndaw kenn du len faté imam Moussa suni seri nek ko xamantene setu la ci Medina ci dakar wu ci islam bi suuf nak man na lek yap man na lek yah waye wallahi man ta lek jeuf imam Musa ilaa yawma yub'asu lim fi bàyyi woon dañ koy fàttaliku ba keroog ñu wuyu suñu borom imam Birane Thiam ndeysaan léegi-léegi rek wax koy daf ko wax yaram yëpp daw mu nekk conférencier bu doy waar bàyyi laay ñun day li ñuy xamal mooy dañ daan signé di wax ak nit ci wàllu nañuy doxale suñu conférence moom la xam nag yaa xam da koy fay ci nangam am na ci ñan ñoo xam ne sax bay asmam ma maa ngi lay ziare Njaay Jaata ndax historique taarix histoire nit day xam histoire day xam cosaanam loolu li muy waral day tax doo lambatu wala taafu ma laysa laka bi ilm Quran dafa ne bul def loo xamut moo tax nit balaa ngaa wax la ngay wax danga koy xam jërëjëf ci ba ñu déggee sa kaddu ci histoire jàkk ji ñu mën a basé ci loolu ne déggoon nañ ko ci baay Asma Mba nee na nangam ak nangam ak nangam kon li ma wax léegi ci suñu papa Moussa Ndaw nim ko waxee noonu la dañu xiimali ko rek gis ko wallahi dund nañ ak moom mu nekkoon ku yaatu ku yaatal ku yaatu ba pare yaatal waaye wax léegi biraam dafa daan def conférence ba pare jël alalam ñun ñëpp man mii tey dinaa wéet day ñëw rek bokkal ma ko ne ma bul wax ndekete noonu la ko doon defee ci jàkk ci yàlla nañ ko yàlla fayal bi ñuy programme ak président lay ci semaine boobu ñu sax ci la ñu tàggee ne dee na waaye nag wa laqad ji'tumuuna afraada kama marra buur yàlla ne ni ma leen bindee par kenn kenn noonu la ñuy demee par kenn kenn wa kulluhum aati yawma alqiyamati fardan kenn ku ci nekk ci ñun nin doon ñëwee par kenn kenn noonu la ñuy delloo par kenn kenn tuuram jot na yaakaar naa ne suba man la gis nga bàyyi laay ñàkk ki ngay ñàkk xalaat na yaa ci topp moo lay indi cànkute looloo waral bu ñu tànnee tey thème bi def ka al amaana al ahd muy kóllëre nit dees am ak moom kóllëre ci ba muy dund bu dee it booboo gën a am solo inna al axda kaana mas'uula kóllëre gi ma doxale seen diggante man yàlla yawmal qiyaam dama koy laaj kon est-ce que yelluwul ci ñun jooba jiba sunu yaay maada yaay booy est-ce que kon yellul ñu xool liñ doon dundal yëkkatindoo ak ñoom di tegandoo ak ñoom ñu faatu ñu fàtte leen ñoo ñàkk kóllëre maa ngi jégalu Imam Ndiaye ziare suma copain Abbas Mané munuma ko ñàkk bañ a tudd moo ñu boole moo ma takkal soxna sama doom sama bi jëkk mu sama taaw moom moo jël otoom bañ ni suba la korité la façon hôpital bu dul hôpital Djinné fii lañu jóge malak moom clinique ñaa waa clinique ñaa yóbbu ñu Gaspard Camara man moom yóbbu ñu Gaspard Camara xale bi mi ngi teere ak moom roi Baudouin duma la fàtte mukk maa ne l'islam rek moo ñu boole alquran rek moo ñu boole man ku gërëm wallahi alquran a tax ndax ku ma defal ci lislaam ma gërëm la maana yàlla na yàlla fay la mbokk yi bu ñu waxee kóllëre yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy suñu référence mu la amanata wala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu alayhi salaatu wasalaam nee na yéen kenn ci ñun daal du mën a am gëm yàlla lu dul da am kóllëre imam Babacar kon ndekete balaa ñu am ngëm imam Babacar dañuy am kóllëre kóllëre yàlla subhanahu wa taala du ko téye jox ko asamaan mu ne attanu ma ko mu jox ko suuf mu ne attanu mënu ko mu jox ko montagne yi mu ne attanuma ko mu jox ko doomu aadama doomu aadama jël mu ne innahu kaana zaluman jahula ha mbokk yi du responsable bu ndaw de léeg-léeg di dégg suñu mag di sonn lool ci kóllëre gi nga xamante ne moo ëpp importance mooy kóllëre ku dee ndax kooku da nga koy laajte ndax doomu aadama fala budda nga faatu xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala bur ne dem leen ni testé bu gannaaw bi mu bindee dee ak dund dee la njëkk a bind xool kenn ku ci nekk ci yéen ku ci gën a rafet liggéey allahu akbar liggéey bi موتاخ ليغي يالا بايكو كين دكو تيل بوبام اعملوا فسيرى الله عملكم ليغي لين مان بور يالا ماغي سوبرفيزي ليغي تخ ليغي يوي موي ليغا خامتنا الله كو خاص ما دي موم غاي ديوالي موم غاي ديكوالي motax waxtaan mi dama koy teunk ci kóllëre gi nga xamne ne yonent bi alayhi salatu wasalaam séqoon na ko ak saxaba yi kóllërante ak ñoom ta alquranul karim dox suñu diggante ñun ak yonent bi te ñi ngi nek ci wéru koor mu nek wéru quranul karim شهر رمضان الذين انزل فيه القران weeru koor mi nga xam ne bokk na ci ngëneelam ci rëyaayam ci màggam ci la yàlla wàccee quraanul karim weeru koor ndijaay seen indiwaale ay teraangay boppam tax yonent bi bu weeru koor daan jot wax naa ko Babacar Babacar ree da daan bég kanam gi di naan weeru koor jot na weeru koor jot na weeru koor jot na da ko doon bége ñu ne ko lu tax mu ne weeru koor day àndaale yërmande gis nga même li yëngu-yëngu yu amoon ci Sénégal sax fexe nañ ba dakkal ko ci weeru koor gi ñu naan léegi nañ leen def dialogue kon day indiwaale ar rahma weeru koor moo koy àndaale bu ñu dawalee ba ci biir yàlla jéggal ñu suñu bakkaar istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara jéggalu leen seen boroom ndax boor bi subhanahu wa taala ajib jéggal encore bàkkaar la kon fii promotion bu leer naññ la woo xam ne kenn ku ci nekk ci ñun da nga am yaqiin ne ba ngay judd ba ngay nekk liir ni nga meloon ci set bàkkaar fa nga toll weeru koor نيات يالا دي نيات الشيطان بالشيطان دو ام كاتن استخوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله شيطان موموي جيل دوم ادم بايلاي ديكو سك سكال بامو فاتي ني يالاي بور بامو فاتي تودو يالا ولا فاتي جولي yàlla nag gis nga ba mu ko njattee looloy waral jàkk ji di fees daf ko njatt rek jàkk ji fees daf ko njatt rek jàmm am is qaala cheytaana lil insaan ukfur falamma kafar qaala inni bariun minka إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين شيطان موي واخ دومو ادم ويدي بانغا ويدي بابا سالا بو ويدي مودل دو غيناو ني اني بريء منك من كو دنت يولا لا inni axaafu llaha rabbal alamin gis nga moom musta wax ne ku ñeme yàlla laa man ku ragal yàlla laa yàlla da ko dégradé doom waaye seytaane ku ragal yàlla la gis nga bi muy naat sax oustaz bi koy yàlla di génne ci yërëm daf ko def fa bi izzatik gis nga pour wane ko gëm yàlla la fa bi izzatik wallahi la uxwiyannahum ajmain <laughs> gis nga ci sa kattan yow yàlla kon kenn di wax ne seytaane ragalul yàlla yàlla da ko dégradé mooy li ko subhanahu wa taala usjudu lis adama fa sajadu illa iblisa aba kon seytaane bay lay njatt gin ko njattal moo tax même bu fekkente ne am na kuy wax ak yow li wax jukkatul noonu sax nga di ko bàyyi ko ana inni saa man dama woor est-ce que doomu aadama sax bëggatul jël ay kàddoom inni saa im man damaa woor kon nag alayhi salaatu wasalaam koor nga xamante ne moom la ko wa taala farataal ci moom comme ni mu ko farataale xeetam yi ko jiitu te ñun ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la bon lañ bokk mu jël alquran doxañ ko ci biir ci la yàlla subhanahu wa taala wax nag ne waxal nag sa nit ñi nañu càmbar alquranul karim te alquran tontoo moonu jàngal lii ñu tuddee tey ji tem bi mooy kóllëre شامنا وأتراجها مغني kon suñu mag ñëw na léegi muy mag euh, Lamine Gueye ñu ngi koy ziyaare ka ndokkeel di ko ñaanal yàlla moom it yàlla na yàlla taxaw ko Gueye Nioro jërëjëf grand Lamine ziyaaraat baa ngoog jërëjëf waa mbokk yi kon nag xam nga fan koy tënke mooy dinañu jël alayhi salaatu salaam li ëpp solo ci dundu nit mooy buy faatu suñu mag sonn ci lool te kóllëre la ak ñun mooy kii faatu nan lañ koy toogee ndax kooku ki am kóllëre ak moom moo ko mën a jege waaye kooku bu faatoo ku gën jege ci moom am ci moom kóllëre moo koy sang ñooñu ñoo koy dugal ci paxam ñooñoo ko jullee ñooñooy continuer it di ko ñaanal ndax yonent bi wax na ko nee na nit bu xasee ba faatu inqataa dog na jeexal na amaluhu bépp liggéeyam illa min salaasin ba mu des ñett nit bu xasee ba dee jeex na imam babacar sadaqatin jaariya sarax su baax si nga def da def fekk ci biir bàmmeel moo bari sarax am solo aw ilmin ñun tafa'u bi wala xam-xam bu sell bu fi bàyyi woon moo tax mag ñu du kenn ku dul ñoom ku ci daan tabax kër mag ñi bañ daan tabax kër noonu la ñu fondation bi ak jëmbat garab ak daa di bëttul gis nga mag ñi daa nañu jël loole di ko boolewaale ci ilmin ñun tafa u bi ci desit mooy aw waladin saalix mooy doom ju baax bu koy fàttaliku di ko ñaanal si di ko fàttaliku di ko ñaanal kon grand Lamine xanaa ki génn àdduna ki mu seqal kóllëre mooy ki koy ñaanal saa ne moo tax ñu jël ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaay booy dernier dundam moom sallallahu alayhi wa sallam maanaam fañam ku mut madinatul munawwara la ko fekk muy Medine gannaaw bi mu defee xajjatul widaa ba mu defee aju tàggatoo ba taxaw Arafat tisbaar la woon alayhi salaatu wassalaam naan xal ablaqtum ya asxaaba rasul est-ce que matal naa yéen saxaba yonent bi ñu ne ko wallahi ablaqta ya rasulallah ñu ne ko ax ah, kay matal nga foofu la yàlla wàccee aaya boobu ñu wax naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtum aleykum niamati wa raditu lakum al islaama diina tey ji ci tisbaar gi ci xajjatul widaa gi gi ca laa matale diina ji ci laa matale it xewal yi dootuma reconnaître beneen diine budul diine l'islam aleyhi salaatu wasalaam jóge ak dem madinatul munawwar Cheikh Alim ba yonent bi demee Madina benn waay ci waa Lansaar faatu alayhi salaatu wasalaam dem ca dëj ba ba mu demee ca dëj ba moom sallallahu alayhi wa sallam mettitu bopp dogale ko la ñuy defar waa ji yëpp ak la mu jullee yëpp mettitu bopp bi di gën a tar alayhi salaatu wasalaam jibril fekk ko fa ko ki du mettitu bopp Doliprane du mooy wàññi douleur bi tey du mettitu bopp te ayatal kursi yiw di ko jàng wala li nga daan jàng allahuma inni tabassum dur wa anta arhamar rahim du boobu tey yonent bi kon nag yëg ne douleur bii ko dal muy metit bi day fas yéene wuy ji boromam alayhi salaatu wasalaam dem ca dëj ba ba dëj ba sotti sallallahu alayhi wa sallam gaawtu dem ci néegu yaa aïchata ndax fa la gënoon man suy dallu fa la daan dalloo waaye ba mu demee assalamualaikum laay mu ne asalaamualeykum rek yaay Aïssata commencé sama bopp a ngi metti sama bopp a ngi metti sama bopp a ngi metti xoolal yonent bi mi ngi ñëw ànd ak mettitu di ko soxna si soxna si ko man ko man sama boppaa ngi sama boppaa ngi sama boppaa ngi ha ah est-ce soxna da ngay am ak moom complicité xoolal yonent bi ni mu meloon ak Aïcha moom mi ngi jóge dëj ba boppa ngi mi metti mi ngi ñëw ci yaay Aïchata wax ko ko Aïchatu mi ngi koy jàmbat bopp mu ne ko ak man it waaye yonent bi xam na ni mettitu Aïcha ak mettitam du benn ndax moom yàlla xamal na ko ne sa mettit googu ci ngay wuy yi sa borom mbokk yi moo tax léeg bu ndul jàng histoire duñu jàng Qur'an ñu jékki-jékki rek mbir yi am ci ay feebar ay dëj ñu naan kii mooy mag moo mag ci kii bi mooy xali kooku wax wax waxu ko daanu fasla boo nekkee xalifa ci kër gi te xamoo dara da ngay jàngi dooga mën a taxaw sa bay waaye yaa fi mag ci at moy khalifa kër gi wallaahi moo tax lu am ci jumte ci lu bari ci réew mi ci gox bi ci famille bi ñom la dëj am non non non on fait comme ça déedéet c'est pas ça da ngay jema xol bay lamu jangé won ci yonent bi yonent bi alayhi salatu wassalam mo ko leen tek alquran nga jare ko non mo tax ñu bari bari bari ci ñun wallahi yawm alqiyamah dinañ ko dik leen tek suñu wayjur ndax inna wax naa léegi ne kóllëre lu ñu laaj la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bay frustré Aïchata bintu Abi Bakar ne ko yow Aïcha waa léegi yow sa bopp bi di metti gis nga yonent bi sa bopp bi di metti waa boo ci deewee nag gis nga yonent bi gis nga njàngale mi ngi bëgg tourner bul bi mu ne ko yow sa sa bopp bi di metti waaw boo ci deewee nag Aysa na ba xanaa nga defar ma mu ne waaw su ma la defaree ba pare damay takk keneen de gis nga fa saa sa Aysatu wér mu ne ko eh mu ne ko naa mu ne ko xaw ma dafa bëgg da nga bëgg am keneen koo takk am déet gis nga moom Aysa ti boppam yonent bi wër na ko ba delloo ko moom ay gis nga mu ne ko waaye Aïcha mu ne ko dalal rek dalal Aïcha fa saasa kontaan na ndax ñàkk uh, wujj ki nga xamante ne jigéen ñàkk na ko bañ a bëgg waaye yonent bi bopp bi lu muy mitti mitti mi ngi gën a yokk te dina ko fukki fan ak juróom quinze jours augmenté bopp bi di gën a augmenté alayhi salaatu wasalaam dem ma dem jàkk ja njaboot gi wër ko léeg-léeg ñu ngi jël aw serviette di ko dugal cib ndox di ko wañ yonent bi nga gis ni muy ñàkke nan la ilaha illa allah wallahi inna lil mawta sakarat amul benn buur bu dul yàlla ndekete dee am na métit augmenté bopp bi foofu nag sax dem na bu mënatul dem jàkk ja mu ne Ababacar mu ne ko naa mu ne ko kaay jiitee Ababacar ne ko pour lan mu ne ko métit bi dar na ci man man mënatuma dem Ababacar commencé di am ñeewantal ne ko wallaahi duma ko man ndax am naa fu ma yegg ci yow mu ne xaaral ma bàyyi Omar ibnul Xattaab jité ndax Omar ku dëgëroon la. bal ma naa la Omar ne ko duma ko mën ndax wuutu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu la ñu joxante ba Bilaal noddu liqaam yonent bi ne bàyyi leen mag sama wax Ababacar ji teel Ababacar ne allahu akbar di jàng faatixatul kitab kenn mënatul dégg faatixa bi ndax ay yuqotu jooy alayhi salaatu wasalaam daa di jafandu ci boppu lal bi di raam ba ci watu Ababacar Ababacar yonent bi ngi naan allahu akbar Ababacar naan allahu akbar gis nga loolu moo andi dëgtal kaddu imam li nga def Babacar fii la bàyyi ko bu yonent bi ne allahu akbar Ababacar ne allahu akbar nit ñi ñi ngi roy ci Ababacar Ababacar mi ngi roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu julli bi jeex tuuti rek yàlla xam kan la yonent bi alayhi salaatu wa salaam nek jek rek gisuñu mu jël baram bu tedd ba de ko tak ci deun bi ni mu juddu woon nonu la genné di benal yàlla nan fi rafiqil a'la fi rafiqil a'la bo fekente ne ñi nga xamne ñoko assister di ay kolereem di ay mbokam ñi ko doggali gis nga moo jàngat la nak la doggat nan manam ni ñu doggalé nit

nga commencé di wax nak nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammadu rasulullah gis nga lele nak ñun yaakar nañ ne kay bëgg de nga naan ko waxal la ilaha illa allah su leena dedet nak ndax mi ngi toll ci surtout ci fu toy war yow ya war a wax laa ilaha allah mu koy dégg mu tax loolu ay jàng la ndax kenn ku ci nekk ci ñun assisté nga soo assisté wul sa yaay assisté nga sa baay wala sa maam wala sa jabar wala amaana di nga ko mës a assisté doo ko jàng kollëre la ay ñun mënuñu lu dul kii na dem leen nangam ak nangam jël suñu loxo ndax néew ku yàlla suturaal da ko war a jox sutura man satara musliman ستره الله يوم القيامة بقينا نجانك تباي تخان كو ستره النت يالله ستره يوم القيامة وخما لك نك سوي جور كو تيوان اي سترام باي بق جن عدنا نغوني اي سترام كون كوكو ورا جس جسكو كوكو ورتا جس جسكو تنيبا خمنين والله سكرة الموت سخنا جينبا سكرة سبنده كين منو لواخ نمو ملتي متت kon nit ku tollu ci sukkuraat du ñepp ko wara assister amna ci yenn yo xamne yalla ko momal jaamam ci sutura ci la bok kon nak ko amul kóllëre ak nit waroo du tim neew tiim néew akbar al aqrabu awla est-ce que sax dañ koy wax ñu ne ñi jégué gëna a tonto Diop gis nga ku jege rek gën a yey alayhi salaatu wasalaam ni koy noddantil ay yaramam bañ mu faatugu mën a kooñ lég la ñu andil ñu nit da ngay gis melokaan bi da naan kii ba muy faatu ani ay mbokkam waaye yëpp rek yonent bi mi ngi naan laa ilaha illa allah wallahi inna lil mawt sakaraat amul benn buur bu dul yàlla nekkate sukuraasub ndee am na méttitu dee dégg ba ci bët nag da koy da koy jël muur ko lu koy waral mooy malakal mawti bu ñëwee ba ci bët bi kii nga xam ne mooy néew bi bu ko gisee rek amaane bët ci mooy andi nit koy dee nga jékki-jékki gis ba ci bu xeeku ndax métti dee ba alayhi salaatu wasalaam seddugu yi mi ngi ko defe ci néeg Aïcha tooga toog sabi teru malaaka mi roji suru muy metti lool te doo nga xam ni yàlla mooy borom jaar nga toog a toog sa bistero malaaka mi rocci sero day metti lool njool te doo xaru nga xam ni yàlla mooy borom jaam laa ilaaha illallah ñëw leen julli jullee woor ku julliwul de perte nga nu xam ni yàlla mooy borom jaam rafiqul aala yonent bi bakken bi dem na ci pays yu kawe delluwaat na ca buur bi subhanahu wa taala kon na ba su altine la altine googu kenn du ko fàtte ci ñun saxaba yi ñoom ñëpp daje gis nga ñoom bu dëj amoon dañ daan daje ci jàkk ci fa lañ daan yëgee xibaar bi gis nga loolu lu yi ñom ñëpp kenn ku ci nek daje fan waye imam babakar ban fa dajé tis amna ndax dé musiba la ko yàlla tuddee bi shay'in min al xawfi wal ju wa naqsim min al amwal wal anfus was samarat فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه مصيبه مصيبه musiba شنو كاو بايلاي njëkk ñëw dafa ñëw jaaxle xam nga lu mu njëkk wax bi abi anta wa ummi ya rasulallah ak neexoon tey musiba bi dal suñu kaw yàlla rey sama ndey ak sama baay ngir wecce ko bakkenu yonent bi kenn ku ne wallahi law kunta tufda bil la fadaynaaka ah tey jii bu fekkente woon ne ab bakken mën nañ ko weccoog bakken dinaa jël sama bakken jox ko yonent bi yonent bi dunduma dee kii yaa qawm laa tusaddiqu kayfa yamuutu rasulullah ee eh, yéen nit ñi nan ngeen di dëggal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na naka la koy xel mën a nangoo kon kii moom nangoogul ne ba léegi yonent bi dee na na ko bal yaa Usaama maata rasulullah laqad sami'tu bi dhalika min aqrabi nnaasi ilay wa qad arsala al abbas ila abi bakrin yuxbirahu alxabar ah kay Usaama yonent bi dee na léegi léegi léegi maa ngi dégg abbas di yónnee kër Ababacar di ko wax xabaar bi ابن الخطاب نيو با عمر نيوي ام كين كي صحابي نكو يا ابا القاسم ولا يا ابا حفص احقا مات رسول الله يو بايو حفص est-ce que yonent bi alayhi salatu wasalaam faatu na ko way xàq ماذا تقول رسول الله يموت والله ما مات أبدا ولا يعاقبن من ذلك حين يقوم هي تي المسألة من لا بخ يونت من الله ديوي واي كوما دغ تي nga wax wax jigi nga xam képp ku ma ko dégg te mu koy wax dinaa jël sama jaase bii teqali sa loos ak sa baat gis nga Omar ñaaru la xalifa rasul sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba yi ne ko bal yaa Omar maata rasulullah mu ne ko ah kay Omar ay ni yéen yonent bi faatu na ay ni yeneen yonent bi fàttu na tuuti rek ñu gis Ababacar di ñëw ak xel ñu ne yaa qawm haa qad aqbala Abubakar musliha ee mbokk yi léegi xibaar gi ñor ndax ñu ngi gis Ababacar mi ngi ñëw léegi léegi te mi ngi ñëw ak xel Ababacar ñëw dugg ci biir jàkk ji bàyyi ba mu duggee ci jàkk ji moom dong moo am sañ-sañ am accès néeg bi yéneen bi faatoo gis nga grand Lamine moom dong moo ci am lu tax coow li yëpp am mooy ñoom kenn amu ca sañ-sañ am accès gis nga li ñu doon waxtaanee léegi am accès ci néeg ñaata ci ñun ñaata ci ñun ku deele ñëpp ñëw lan la diw kii ubbi la la la allah mbokk yi fu ñu jëm xoolal saxaabatul ñoom ñëpp ñu ngi toog ci jàkk ji di werante yonent bi am déet ba Ababacar ñëw fekk leen fi ñu toog ñu ne ko nag yow la ñuy xaar demal nga xoolal ñu ndax yonent bi dëgg dëgg am déet c'est parce que lu ko waral benn fi yonent bi faatoo muy néegu Aïcha te l'islam dafa fiir te Ababacar moo jur kon yonent bi am na fa accès am déet ah kon Ababacar am na fa accès am déet néegu doomam la waaye gis nga ñun koo xamante ne yéen ñaar l'islam tonton Lamine fiire ne doomu aadama surtout jigéen ba fiire ko ba muy doon néew imaam a ngi nii lan suñu l'islam te xam ne loolu mooy kóllëre ñu bàyyi fogi bu amee rek ñëpp wax ñi waroon wax noppi ñi wartoon wax wax muy indi problème ma ne la Ababacar dafa ñëw saxaba yëpp xaar ko moom moo am accès ci néegu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax lu ko waral tonto Diop mooy néegu doomam la ndax moo jur Aïcha baarakallaahu fekk jërëjëf yàlla na micro yi jéggaane wu ñi ñii télévisé waaye jéggaane wu ñit ñii conférence waaye jéggaane wu ñu ñi fi toog kon lii moo lay Medina am na lu subhaanahu wa def ci ñun ci baaxu mag ñi yàlla nañ ko muurloo kon maa ngi waaj a jeexal juróomi minute rek moo ci des la ca des incha allahu dañ koy tënk ndax waroon nañu bindoon nañu ba bind naka la ñuy sangee néew waaye loolu yëpp suñu mag ji jàngaloon nañ ko waaye du ñàkk incha allahu ndax ci yóbbante gi la bokk te kóllëre la imam seen Ababacar yu dugg na ci biir ba Ababacar duggee dafa xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam làmb fi mu waroon làmb yëpp xam ne yonent bi faatu na mu foon ko ci diggante ba kenn bi ne ko yaa rafet tund kii moo rafet dee kon yonent bi ni mu rafetee ni muy dundee noonu la rafetelee déggi Ababacar ñëw delluwaat ci saxaba yi njaab ñetti yoon itta hayyan wa maytan ya rasulallah nday oustaz nee na nee na loolu la ko wax mu ne ko yaa rafet dund yaa rafet dee noonu la ko waxee waaye mu ñëw njàpp ba mu ñëwee njàpp tudd yàlla ñetti yoon alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin saxaba yi kenn ku ci nekk مي أبا بكر نبو من يا قوم أي النتني من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله قي لا يموت أبدا يا أيها الناس اذكروا قول ربكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم اي نيت كيب كودون جامو يالا كونتينيل دي جامو يالا باتاي واي كيب كودون جامو محمد خمال ني محمد دين بس نيكي اي نيت فاتلكولين وخ سبحانه وتعالى bi mu waxoon yonent bi bu ba muy dund ne ko wama muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul yonent bi yonent la rek la ni yeneen yonent yi nga xam ne ñoo ko jitu yonent bi ni yonent yooyu deewee noonu lay deewee yaa xam dafa feebar ni ko feebar bopp dalee ba mu dee wala mu nekk cib guerre ñu jam ka mu dee muy ñu assassiné ko yëpp benn la si yàlla lorul yàlla benn yoon kon nag après si imam gay imam gay xaar waaw ma kilifa jataay bi ko di ndokkeel imam ci fàttali yi am solo yi mu ñu fàttali ci li nga xam ne moo dellu ci thème bi muy wàllu kóllëre ah, bu ko defee yàlla nañu yàlla may dégg yàlla may ñu ak topp ah, ah, dégg nag moo gën a jafe déglu ak dégg bokkul waaw ah, nit mën na toog ci jataay déglu waaye pourtant déggul waaw ah, ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may dégg ah, may ñu topp xëy na thème bi liñ ci bëgg contribuer du bari dañ koy tënk rek def benn synthèse ci li nga xam ne ñun noonu nañ ko déggoo woon bëggoon ko indee noonu waaw ndax yàlla dafa bind la société humaine def ko muy projet mais am lu mu ko neub ci projet bi ci bopam naka la tudd moo ñi fi jiitu nit daan nañ dem ba yenen galaxie gis fa yu yéeme ci yalla nu mu organiser asaman نتي أم جاهلة وإنا لا ندري أشعر أريد بمن في الأرض أم أرادي بمغبهم رشدا كون يوم اللي في نك دال كو بغي ياقلا ولا كوي يدفر لا واي نيوم امو نيو تونتوم بو سيتي ماك نيو جيك نيا دان نكو خاوا ملال كي دمير الكون waye imam Bouchiri mom dama yiril ko nula wax def jamu ñu ne xëñ na li mu doon tudd bàjjee yonent bi motax mu def ko jamu ña doon projet bobu ñom soppi tour ba def ko tuddoy ko wahyul alam la conscience universelle ay yàlla mom mi mom projet bi ba legi waxul projet bi naka la tuddu ay ba yonent bi ñëwé nak ci la ko wax ci alquran waaw وما هو ذكر lil C'est une civilisation c'est une civilisation civilisation la C'est une ne rappel la ak civilisation civilisation. civilisation mémoire la civilisation mémoire c'est ennemi la am oubli répétition rek

bamu waxe mom yàlla bamuy muy iza isa rabbuka min bani adama min zuxuriyam zuriyatihim ashadum ala anfusihim alastu bi rabbikum khalu bale yàlla nee man ma tey ndigal adama te bamay tey téye ndiggam ñi wara judd yep nga ci sama sama ngeub loxo ma leen du man may seen borom nee ñep tontu mané waaw shahidna loolu mooy kóllëre gi waaye wóllëre bi imaam tudd na ko ci ci amaanata bi waaw mooy sirul amaan bi yàlla nee na ma jël wóllëre boobu dénk ko asamaan mu ne mënu ko ma dénk ko suuf mu ne mënu ko ma dénk ko montagne mu ne mënu ko nee ma dénk ko nit nee nit mom nga daajoo ko waaye nee nit dafa dafa dafa dafa dafa zaluman dafa meuna togn jehulan dafa ignorant mais zaluman bi du togn mais ëpp nit la hmm te ku ëpp nit togn nga nit bu ëppee nit rek togn na waaw la bi du ignorance mais incapacité la parce que ku war a yalla ci fépp fu mu nekk yàlla boo foogee ne loolu dinga ko mën kooku da nga ignorant nga yàlla nag soog ñoo indi ci biir li nga xam ne mooy moomeelam parce que ci biir mulkiyaam la boole ñu bokk ci nguuram yàlla ci nguuram lañu boole mu tënk ñu nag ci biir nguuram googu ci ay principe bi ci jëkk mooy le principe divin Yalla utal ko valeur socle moy al iman utal ko symbole moy julli juróom kon ne bu ne iman kon benn dimension ci diine duguna na waaw iman buñ ko tuddee nak moy université bi waxtaane woon nañ ko fi daw ci jàkk ji hmm. dañu dem université de Dakar né leen fi dégg nañ fi génie rural génie militaire génie civil génie nangam nangam mais génie humain dégguñu ko fi ñu ne ñu amuñu amu fi mané ne leen ci daara yonent bi rek la am hmm. un génie humain alxuraan rek moo ko mën def hmm. parce que nit da fay nit ñu bari ci benn nit té ku ci nek am sa programme bop lay programme programme moral. mystique scientifique un poète la Dieu a désigné l'homme comme le grand favori de la compétition interuniverselle c'est là le sens qu'il donne à la liberté un sens et une manière qui ont pour point de référence la dignité de l'homme cette dignité qui fait appel chaque jour à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu c'est l'âme avec son inclination au sacré, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête perpétuelle d'approfondissement et de divertissement, c'est le corps humain avec son légitime besoin d'aliments nutritifs, mais c'est surtout l'homme élément de mesure qui est là pour en assurer une distribution équitable, sinon toute est obscurité dans le plus obscur des mondes. nee na yàlla bind nit def ci am programme mu def ci moom bakkan bakkan am programme bappam mu def ci moom xel xel am programme boppam mu def ci moom jëmm bi nga xam ne moo leen ëmb te moom tam mu am programme bappam yàlla nee na bu ma leen indee fii sama sama sama sama kóllëre mooy ngeen fexe ba organiser loolu ci seen bopp ba ma mën a gis sama bopp ci yéen parce que nit mooy feeñukaay yàlla

nit non la mel ci yalla yàlla ci nit ci nit lay seto waaw moo mu indil la ben principe moy le principe divin indi ben rëmziyaat ki mabda bi la ki rëmza bi mom moy wàllu iman iman nak mo géré dimension yi nek ci nit yep wa budé intelligence am muy xelam la budé dee ruuxam la budé dee bakkanam la bu ci nek lan moo koy géré ba nit ki man ko ba créer li ñuy euh synergie bu déclencher na mm-hmm. iman quatre facultés mo ci nek ak rectorat mm-hmm. faculté bu ci iman moy aqli iman mm-hmm. l'effort intellectuel bi nit di nit mënu ko am tànk toppatoo lu ñu ko xelam motax tax yàlla ibrahima ba mu ne inna rabbi bi kulli shay'in ilman amna na lu ko tontu ci kër yàlla nako la dina kitabun mantiqun bil haqq yàlla neena sama table ben terrain ci bi nga xamni toutes les perceptions li nga xamni moy sen seen code ma nga ca kon ma ngay deugal ibrahima mi waxani ni xat xaata bi kulli shay'in ilman

mais jàngal téere yëpp jàngal université yëpp boo amee le sens de la perception doo mën a jàng yàlla nee na lool faculté la ci biir iman mooy alifu iman bi yaawu iman mooy yaqinal xal bi parce que boo ñëwee ci cadre aqlul maxsuub boobu zakira mémoire boobu zakira moo fay dox boo demee ci aqlul maxxuub c'est plus de la récitation c'est plus que tout autre geste de piété c'est une manière providentielle de communiquer avec une substance de qualité si longuement recherchée dans la matière grise de l'homme c'est plus qu'un enseignant, c'est de la haute science défiant et les événements et les bouleversements qui les accompagnent alquran c'est de la haute science. yow wax nañ ko fi ci jàkk ji lettre alquran boo gis rek moom tam ci boppam compartiment ci xam-xam la diggante alif beeg laam beeg xaaf beeg raa bi lif ko dog beeg dog bi hamza bi ak nuun bi bu ci nekk comportement ci xam-xam la waaw yàlla nee na maa jël xam-xam yu jiitu yi ak yi ci digg bi ak yi ñëw yëpp def ko ci benn turi tuddi ko kitaab waaw nee na tawreet ak injil moo jiitu woon min xablu wa anzala al furqaan ñett yooyu la tuddee kitaab xam-xam yu jëkk yéeg yu mujj yéeg yi ñëw amul benn jamono bu ñëw mën a raw alquran parce que alquran mooy toutes les toutes les siècles baatu xarn mooy siècle plurielu xarn mooy quran li aju ci li guide nit ci di leen yóbbu ci li nga xam ne mooy leen tax a jóg parce que bari na kuy sonn te li ngay sonnee taxul yàlla bind la parce que yàlla moom daf la bëgg boole ci boppam moo tax nee na heure boo fàtte li la tax a jóg rek ma fexe ba nga fàtte sa bopp fa ansewu anfusahum yàlla nee na heure boo ma fàttee ma fexe ba nga fàtte sa bopp yaa ngi ci avion yi di dem yaa ngi ci réunion yi fekk fayit nga bu yàgg parce que moom projet bi mu la boole amul njëg boo dajaloon budget yi ci àdduna bi yëpp mënu fa jënd lu day ni tax fatal ay ni parce que wàllu jawhariya la moom foofu la la invité boo dajaloon bi yi ci àdduna bi yëpp yàlla moom li mu la yéene ak projet bi mu la bëgg a dugal mënut a jënd ci foofu lu day ni tax fatal ay ni moo tax mi mu iman mooy mu jahada jismi moy nit ki nakale top topp ci taw yaramam ba wér gu yaram nek ci wala lay wax ne ministère de la santé bagn ko tuddé ma tuddé leen tuddee kon ministère des maladies parce que santé prévention la bu ñu tëralee yëf ni ko waxa teulé tëralee kenn du feebar ndax yonent bi moko wax ne ñun duñu feebar bagn ko mayé docteur mu delloo ko euh, roi abisini moko may docteur ci cadeau yi may ko soxna kenn ci soxna yi sax moy Mariam al qibti moko jural sañu sañu sañu khalifa Ibrahim mu nangu cadeau yeb delo docteur bi ne ko ñun duñu febar buur bi jaaxle ndax xudul febar feebar moom mënu ko xam mu ne nañ ma ko wu tax ñom duñu febar mu ne ko ñun duñu lek te xifuñu te duñu lek ba suur kon ndeyu febar yi moy lek le premier comprimé buy faj nit moy li ngay lek moo tax jettatik ben dimension bu reele ci bir iman xam li ngay lek ak di lek lo xamni ne dagan na parce que bo moy wér bu jekk bi xam li ngay lek ak di lek lu dagan alif bu iman bi moy al isra ruhi koku mom mo gérer li nga xamni moy esprit nit ki wala ruux nit ki Nous bi ci iman moy nous ala nous. te yalla bamu ci allahu ci nit rek la wax nit rek parce que nit moy projet bu mag bi Bek, beeg Bek, beeg Djebi. bi dafa des ci khawasul nous yi nga mom la nit le sens du toucher le sens de euh, de l'imagination le le sens de l'intellection le sens de la cogitation yàlla neena koku nit bu fa agge meuna a xelam nit dina tollu fo xamne même bu wahyu amul yàlla neena nit meuna a bopam lutax xel mi mako jox motax tax mishkat misbaax azujaaja kawkab duri yàlla neena yoy yooyu ay terme la waye alquran limala wax livre des perceptions la yàlla ne ne da ngay tàpp ak moom mu soog la wan boppam soog la xamal boppam afalaa yatadabbaruun alquran waaw yàlla ne da ngay tàpp ak alquran nee na waaye foog nga tàpp ak alquran boobu il faut nga am conscience ci jamono ju nekk nga xam li la fi indi nit li ko fi indi ci kaw suuf lenn rek la mooy dëggal yàlla ak seedeel yàlla parce que yàlla amul nawle mais bëgg na ku ko seedeel boobu mooy principe divin bi yàlla dénk ko iman ramse yi mooy julli yi julli rek bu ñu ci doon waxtaan mën nañ fi waxtaan ba déwén nga xam ne julli leneen la du këpp-këppal dem ay moment de connexion la de grande connexion ay moment de grand début la parce que julli yi juróom la ñuy indil te julli bu nekk dafa am li mu taxaw ci ci mutamarid yi julli suba naari julli tisbaar nuuraani yu la julli takkusaan turaabi yu la julli timi timis maa yu la xawaa yu la julli gee maa yu la te bu nekk am na yonent bu ko njëkk julli aadama moo njëkk julli suba ba ko yàlla wàccee ci lëndëmuus kaw suuf ba leer leer am mu julli ñaar rakk sante ko yàlla yonent yàlla ibrahima moo njëkki julli tisbaar ba ko yàlla reyloo doomam mu fekk ko ci sante ñaari rakk yeneen ñaar raat yi doomi sante ko yàlla yonent hmm. yàlla yunus moo njëkk julli tàkku sax ñeenti rakk ba mu génnee ci biiru jën ba yonent yàlla insa julli timis yonent yàlla Musa moo njëkk julli Ge geewee Musa. yonent yàlla mamet safa wiitar moo ko njëkk julli moo tax li nga julli ci suba julli ko ci tisbaar julli ko ci timis julli ko ci ge wiitar moo leen huit heures mooy yóbbu julli ba mu des tàkkusaan tàkkusaan rek moo am kattanu demal boppam moo tax mag ñuy tàkkusaan dañu gën a fonk ci waxtu yi waaw salaatul wusta weerante da ci am diggante tàkkusaan ak timis parce que day départ day départ ci tàkkusaan mooy mooy gare de départ am mais gare d'arrivée timis la boo ko xamee mën nga ko julli ci tàkkusaan bi julli ko ci timis bi te mun mutamarid yi moom la ñuy yàlla bindee univers yëpp ndax akul xel mu jiitu mi mi nga xam ne yàlla bëggul nit am lay ci kanamam moom la njëkk bind ñu tuddee ko aklul awal te mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam bind xuwal ilmiya ak xuwal amaliya ñu koy tuddee lawxu mahfuus ba mu bindee xuwal ilmiya ak amaliya ci la bind alheba wala alxayanul kulli la hille universelle wala mu tamer yi nga xam ne ci la bindee université yëpp univers yëpp moo tax nit moo xeeb boppam mais yàlla projet bi ma ko dugal projet bu rëy la li muy xaar ci moom mooy nga ràngoo jikko yàlla yi kooku mooy deuxième partie bi waaye du fi xaj dañuy tënk rek junj mais schéma bi ni ñu ko tëralee woon waaw mooy le le principe divin moo jiitu beneen principe bi mooy le principe humain mëbda bi nekk al insaan mooy nit te insaan boobu ki ko incarné mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu utal ko ay ramza mu dellu ci baatu ihsaan kon lee islam moo yenu principe divin bi ihsaan principe humain bi moo ko yenu parce que jikko yàlla yi la ñuy xaar ci nit ki taallaqu bi axlaqi la foofu nag yonent bi la ñuy topp moom la moom la imaam wax léegi waaw innama bu'istu li utammima maqaam makaarimal axlaq nee na dañ ma dañ ma yónni pour jikko yi nga xam ne mooy tax nit di jege yàlla jikko yooyu ma ma ma yar leen ci gannaaw ba ma ci yàlla jaree moom moo tali ko ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon te indi woon ko boobu nag li muy laaj toujours moom mooy nit ki am benn jokkoo bu dul deñ ak li nga xam ne moom la yonent bi tëral parce que yàlla dafa baaxee yonent bi ba mooy leeram moom rek moo ñu mën a niital moo tax nga may ñu rek waxtu bi dafa dafa tënk tey

moo tax ñuy xam dara ci yàlla foofu lañ koy xamee waaye fan ngay toll ba yàlla di la xool di la sànni bëtam nga xam ne mooy bëtu matam bi kooku yonent bi rek la ko sànni te mooy rëñaan bi te julli loolu la symbolisé jullit bi julli dafay rëñaan comme yonent bi ni mu rëñaanee hmm. li ngay tuddee asamaan yeeg malakoot ak jabaroot yépp ak ci biir nit moo tax rëñaan bi ci sa bopp la hmm. afala yaskurul آه، ما بانفسي ما خلق الله سما سما الارض وما بينهم الا بالحق واجل المسمى يالا نيت كو نيك يا دغال سي سبب ن اسمان يي مبل نم باري باري اك سوفي مو باري اك لفي نيك يوب يالا نين nga دغال كو سبب موتا كو ني دوما ام كليفه جومنا كو ني دوما ام كليفه جومنا باسكو يالا يوننتي بي مو اوب نييب غن نييب مي داف كو ني ساخ نيت مونول نيك تدو ام موديل ابراهيم موي سا موديل

naka ngay déggee loolu moo tax bu yor Ibrahima toujours dualité lay indi maa kaana Ibrahima yahudiyan wala nasaraniyan wa kazalika nuuri samawati wal ard mais ipséité bi fan lañ nit di mën a fexe ba contradiction yi nekk ci dund mu résoudre ko fexe ba créer benn synergie boo xam ne day nekk ipséité dellu ci lenn loolu ku toppul yonent bi doo ko mën a xam sallallahu alayhi wa tax important su julli wax nañ ko yonent bi nekk bu tax yonent ba julli ko boko ko mu nek xam-xam budul jeex mhm. diggante yalla ni mu seddel alfan li ma wax ni ay répétition rek la mais amna histoire yonent yo xamne parce que ñoom rek la fa répété parce que yooyu dafa dellu ci mutamarid yi man shaakum min al ard wax wastaxmarakum fiha yàlla yalla na ma leen sos ci souf ba pare def leen fi ngeen nek colonie moy fi daara la da ngeen ñew pour am xam-xam xam-xamu yalla fi lañ koy amé motax tax nitu yàlla ba ba mu né inna ibadi eh, inna lillahi ibadi eh, futanan eh, inna lillahi ibadi futanan talaqu dunya mu ne aslahu dunya parce que ku fase yàlla ku fase àdduna yàlla réer la képp ku fase àdduna yàlla réer la ndax yàlla fii lañ koy jànge fa lama alimu laysat li ayin watana jàlluwaa lu jetan mu ne maamalan fi fi médd amu fi chantier moo fi am moo tax àdduna këru ne këru dëgg la këru neen la parce que dëggu ëllëg fii nga koy amee xam yàlla tam fii la feneen foo dem fu dul fii ci àdduna doo xam yàlla parce que yàlla fii la xam xam ne boppam moo tax mu indi la fii gannaaw ba ñu tuddee planète planète verte planète bleue te loolu lu ki nekk rek xam-xam la kawkabal azhar kawkabal axdar kawkabal mutamaris daf la war ne ne université bu mag bi fii la la yóbbu fii la la indi mooy àdduna lu tax ñu jël tembe ak ko foofu kóllëre bi rek lañu doon bëgg a xam ni nit sa kóllëre sa borom ngay war a fas boo ko fasee li si des yomb yomb la parce que li li ki nekk ni nga ko mën a delloo lan mooy àqam nga jox ko àqam waaye sa kóllëre ak sa borom bu xasee ba fecceeku leneen loo fi fas itam doo ko topp ndax ku toppul yàlla kan ngay topp hmm. beneen principe bi mooy bi nga xam ne moom la ñu def ci mëbda bi nga xam ne alxuluq la waaw

mu fexe ba jikko yi nga xam ne mooy jikko yu rafet yi ne tënk ci boppam te bañati ci génn daf naa waxtaan nañ ko keroog ci ci ci bayaanu jàkk ji waaw nit fan lay jaaree ci bakkanam diggante nafsul amaare bi ci bisu ak nafsul lawaama bari na kuy jël kartam di ko sànni nit mais sànni la sa bopp carte sa bopp parce que yàlla loolu la la sant daf la ne formel gouvernement ki sa bopp te moo wax ne la gouvernement bi naka lay tëddee daf la ne sa ruux mooy président bi parce que man rek la xam quand sama projet lay adopté xel mooy premier ministre parce que dafa jege roux té lumière la mais nit nitu yàlla da daan wax ni jiital leen xel ci xol yi ndax xel boko ko mu wan la yoon xol boko ko mu dugal ci pax parce que xel lumière la yalla nee na ministre de l'intérieur moy sa xol motax djulit jullit li mu war a njëkk toppatoo mooy xolam hmm. ni jigen di ëmbé di djou xol non lay ëmbé di djou hmm. buñ la nee nga jiital nga jubal sa yaram ci kaaba gi dañ la ne sa ruux nga nga jubal ko ci sa xol parce que sa xol mooy kaabaam boo seetee xibla ak ak ba ñoo tolloo bu ki nekk 132 moo tolloog Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que 92 la ak 40 bi nekk mi mi muy 132 sa ruux mooy sa mooy sa xibla foofu ngay jublu parce que foofu foofu la yàlla di amee contact ak yow hmm. moo tax toppatoo xol yi Haaj Omar da daan wax ne balaa buumu kurus yi di di dëgër nañu toppatoo buumu xol yi ndax buumu xol yi bu bu baaxul du tax dara dem moo tax gis man xëlëb dañ ko tuddee nit koo gis li lay orienté foog nga dem ci yàlla mi ngi ci yow mais da nga koy judduloo ci sa bopp yaa koy judduloo ci diggante ba nga faxasee sa suufu xol ba mu ba suuf si ñu mën cee ji nga téye tur yàlla di ko zikkar ba mu ba mu fekkoon suuf si في أنفسهم ابلا تفسرون هو خايم على كل شيء ما كسبت yàlla nee نيت nit ku nekk man rek la ak yow la maa la taxaw ci li ngay def mais day nga sédd ko ko heure boko seddi rek dina fexe ba li lay womat dotul don téré dotul don nit mais lumière bu muy def ci sa xol la mo lay womat ba tek la ci loxof motax

mën naa am li nga ci war a jariñoo doo ko jariñoo ndax buñ ne yoon bu jub xocc da ngay defoon ne dafa tàllal li dëggul fenn déedéet yoon ba àgg na ni otoraay di di jàddee ba àgg te loolu nit ki pour mu mën ko il faut mu jubóog boppam moo tax nit di mën a sax ci mbaax te dootu ko wàccati principe bi nga xam ne mooy mooy mujj mooy principe social kooku moo la booleeg adduna bi moo la booleeg jamaadaat yi moo la booleeg nabataat yi moo la booleeg xaywaanaat yi moo la booleeg jant beeg weer wi kooku mooy principe social ndax yàlla dafa am lu mu la dénk di la ci xaar responsabilité ci defar defaral ko penc moo tax bu pénc yàqoo rek yàlla day am kersa ndax ku ñu jox lépp pour nga mën a defar te mënoo defar loolu da ngay rusloo ki la ki la ki fal ah, bu ko defee loolu moom moo doon ñeent yi ñu bëggoon campé sujet bi waaye du fi xaj waaye ju ñu nañ ko rek bu ko defee ko ñu jégalu ci kàddu yi nit ba mu nekkee ci biiru ndeyam ci ndox la njëkk nekk mooy jamaadaat la nekk suux nekk nabaataat parce que ñoo bokk ñoo bokk ruux bi leen di dundal ndax bu nee xalaqa كل شيء من الماء du benn ndox bi de boo reyoon yoo wala fel nga seet ndox ma ca nekk bokkul ak bi nekk ci yoo bokku nekk bi nekk ci fel ndax moo tax fel nekk fel yoo nekk yoo nit nekk yoo bu ci nekk xam-xam la bépp maa boo gis ci alquran am na lu mu firi ci xam-xam almaawu ci alquran xam-xam lay firi mooy li imam Shafi waxoon ne baatu insaan bu nekk ci alquran xam naa ki kat ki tax yàlla yàlla tudd ko yàlla da nga mu tudd sa tur ci alquranam bi moo tax mu mu fas tudd insaan xam-xam foofu la yaatoo waaw hmm. ah. moo tax nit ki yàlla def ko ni mu organise environnement fexe ba yàq bañ fee am ci jur yéeg ci ndundanti yéeg ci gàncax geeg yépp yow la ko yàlla dénk lutax parce que yooyu yëpp la ñu dajale bind la yow ba nga nekkee sa biiru ndey da nga fa nekkoon ci esprit boo xam ne esprit minéral la jóge ci esprit minéral ñëw ci esprit végétal jóge ci esprit végétal ñëw ci esprit animal jóge ci esprit animal soog a nekk être basarique mooy soog a nekk nit mais étape yëpp franchir nga ko moo tax nga mën a nekk seen xalifa nit bu tax mu jël amaana bi moom rek moo représenté yeneen yeneen yeneen créature yëpp parce que lu nek ci yow mi ci nit te nit moko mëna exprimer exprimer ci anam bi nga xamne mo gëna kawé bu ko défé kon yar bi fofu la nek bo xasse ba yar sa bop li ñuy tëddee ay écologistes ak yooyu kooku l'islam mo leen ci jitu ndax yonent bi da daan wax ne booy dem guerre bu dag garab bul rey xalé bu rey jur bu rey mak bu rey bu rey labbe bo xamne ma nga ca.

ak nañ ko war a defee yëpp ci ci xuraan la benn benn partie la ci téere bi beneen partie bi nekk furqaan mooy tafakkuraat yëpp yàlla neen na àndal man ma ma ma wan la univers yëpp ni ma ko bindee loolu mooy xuraan waaye tey ci njabootu yonent bi lépp lu ñuy utiliser dañ koy jéggaani ko waaw lu tax parce que li ñuy yéene yàlla mooy jàpp ba mu set lal sa kurus ah téye jaamu yàlla moo gën a yomb

parce que wóllëre woo takk rek te bàyyi wóllëre ak sa borom yàq nga parce que yow yaa ko jaral am na ñoo xam ne yàlla du leen bindal bàkkaar daf leen jéppi parce que yaa ko tax mu jël position am ku taxaw fee ne man maay sa ennemi jël position te seen combat ci yow lañ koy diriger nit mooy terrain bi nga xam ne yàlla ak iblis foofu la ñuy mëne seen combat yàlla bëgg bés bu nekk nga def inventaire tey ba xam iblis moo gagné wala moom moo gagné mais

ku nekk conscience boobu moo la war a yee nga xam fan lañ lay xaaree moo jubale asamaan ak suuf te yore yaa mën parce que yàlla ba mu ne euh, laysa ka mislihi shay'un waxul laysa ka mislihi bu ne woon kenn melul ni man ñu xam ne boppam doy na ko maa ngi euh, di leen xamal nii tey ji jàkka ji conférence bi jàkkay doxandéem yi doxandéem ñoo doon conférence ci biir conférence bi ren dañu jël te mu kóllëre li war loolu maanaam di fàttali mbokki jullit yi lan mooy njëriñu kóllëre ak mag ñi liñ fi yoon li ko dalee ci zoamaaw siyaasi ak kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànkoon jàkk ji di ko liggéey ak ñi nga xam ni ñooy ñooy euh, zoomaaw diin kilifa diine yi nga xam ni imaam yi fi daan jiite ba ci imaam bi ak dëkkandoo yi nga xam ni ñoo fi nekkoon ñii wàññeeku fi ñii des fi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi daan waxee jibril daan na ko dénku ay dëkkandoom ba mu yaakaar ni dëkkandoo yi dañ koy donn kon nag bu ñu jëlee te mu kóllëre dañuy fàttali nit ñi war nañu am ay diggante yoo xam ni diggante teraangala diggante sutura diggante dimbalante diggante eh, jëflante ndax kat al insaanu ila juulil insaan nit nit mooy garabam mu mel ni tey jii eh, yonent bi ci tànk yooyu la doon taxaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mooy royukaay bu gën a rafet comme yonent bi dafa fonkoon ay kollereem ba amoon na ci bar bi benn e, ëkk bu mu daan teg loxoom keroog bañ ko soppee keroog ëkk ba dafa siisu waaye yonent bi dafa ko jël teg ko ci wetam ndax ran pour am kóllëre ak e, bant ku mën a am kóllëre ak bant ci jàngale ak kon war nga ko mën a am ak nit ñi kon lii moo tax doon sababu e, conférence bi ñu ngi gërëm waa Dakar Médina TV nga xam ni ñu ngi couvrir nañu loolu ànd ak ñun ci lépp. président Diack Guy Salane euh, maa ngi remercier ñëpp di kontaan si objectif bi bi ñuy wax coloré dafa am ku ñuy wax suñu benn sëriñ bu ñuy wax Amar Birane Thiam mono si c'était le conférencier yàlla def mu génn àdduna te wax naa moom ba pare ci mbirum coloré looloo tax te chaque fois bu mu ñëw dafay ñëw une participation dafay ñëw def conférence ba pare. jox ñu xaalis kooku moo gën moo gën àdduna ñaanal leen ko yàlla fu mu jëm yàlla ko yàlla xaral àjjana boo gisee ñu def conférence bi chaque année suñu objectif mooy defar rénover la mosquée rénovation de la mosquée liñ fi am bu subaa ñu defar le s'il y ñu jël loolu jëne ko ciment suuf ak fer ak carreau ku ñu mën dimbali tamit nga ñëw dimbali ñu waaye ñu suñu objectif li am nii nii nii buñ ko calculer bu subaa ñëwoo maçon bi mu enchaîné ñu ngi si troisième niveau ñun ñëpp dañ nekk benn bloc wutuñu dara lu dul néegu yàlla bi. yéen nañu ñun ngeen di liggéey ñun tam yéen nañu liggéeyal kontaan nañu ci yéen kontaan nañ ci ñëpp yal na yàlla taxawu leen yal yàlla def taw féex ñu teew ko at yu bari te ànd bu at bu ñëw rek. gën a neex bi sëriñ Mansour daan wax nag su ma sëriñ mu ne nee na Alaaji Malick dafa daan wax ne bu ko yàlla nar a defal na ko na ko bàyyi ba yomal xiyam waaye man Dóor Malick d'accord ma mu ne ñu ne Dóor Malick loolu d'accord mu ne nañ bien fii nañ bien fële rek ci dara jooy yoon tax nañ bien fii nañ bien fële loolu sëriñ ndax ñun sëriñ ñoom suñ taalibe la daal na yàlla taxaw la bismillahi rahmaani rahim usubillahi mina seytaani rajim laa xawla wala xawata illa billahi al azim man maa tudd bu Diop ñu di ma wax maa la maay présidente jàkka ji maay présidente présidente jàkka ji jigéen ñi ñëpp maa leen jiite ca Ilimaan Ndaw la woon boobaak léegi ñaar fukki at ak juróom la kon nag maa ngi sant sama moroomi jigéen yi nga xam ne ñoo may jàppale ba li ma mën a def ci jàkka ji ma di ko fi def ginnaaw yàlla yonente ba maay présidente jigéen ñi lu fi xew man la ñuy jiital te duñ ma fakkatal conférence bi nag thème bi ñu indi pour ñëpp la képp kuy jullit rek boo ko déggee dinga ci kontaan. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الأجر لما سبق نزل حق الحق والخير إلى صراطك المستقيم وعليه عليه حق هديه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحج لما سبق نزرع بالحق والهدي إلى أسرارك المستقيم وعلى عليه حق هديه ومن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحج لما سبق نزرع بالحق والهدي إلى أسرارك المستقيم وعلى عليه حق هديه ومن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما ولقى الحج لما سمع نزرع بالحق والهدي إلى صالح المستقيم وعلى عليه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما ولقى الحج لما سمع نزرع بالحق والهدي إلى صالح المستقيم وعلى عليه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحج لما سبق نزل الحق والخير إلى صراطك المستقيم عليه عليه حق هذه الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الحج لما سبق نزل الحق والخير إلى صراطك المستقيم عليه عليه حق هذه الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق الحمد لما سبق نزرع بالحق والهدي لأسرارك الفتح لما أغلق لما نزرع والهدي لأسرارك المستقيم عليه عليه حق هديه والمنكر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق لما صبح نزرع بلحقه هذه إلى كان المستقيم عليه علي حق هديه ومن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتيم أغلق الحجم لما سبق نزل بالحق هذه إلى كان المستقيم عليه علي حق هديه ومن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتيم أغلق الحجم لما سبق نزل بالحق والهدي الأسرى لك المستقيم عليه علي حق هديه ومنه العظيم علي حق هديه ومنه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ما أولقاء الحكيم لما سبق نذر حق الحق والهدي الأسرى لك المستقيم عليه علي حق هديه ومنه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الحق ما سبق نزرع بحقه والخير إلى صراطك المستقيم عليه أي أمر من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الحق ما سبق نزرع بحقه والخير إلى صراطك المستقيم عليه عليه حق هذه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح ما أغلق على ما سبق نزل حق الحق والخير إلى صراطك المستعين عليه علي حق حديثه اليوم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام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 مكنة مكان اللهم صل وسلم على الحق الذي تجلى منها كل الحقائق عين المعاني لا بصراتك الدار للاسكن اللهم صل وسلم على ثلاثة الحق بالحق الذي العظم بفضلك منك اليك احد النار المتلسم صلى الله علي وعلى علي صلاة عارفنا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقنني بالعافية عائدا لمركز الفهم والمعاني وعلى نور الأطعمة كي يعلم الإنسان الحق ربه ومن ألباء الملات لكل مدار من الدور والنوان أنك الكلام الذي ملأت به كونك الحائل من المكان اللهم صل وسلم على الحق التي تنجى الله منها أرز حقائق عين المعارف لبن سراد قدام الأسكم اللهم صل وسلم على دلالة الحق الحق الكنز العظيم بفرجك منك إلى كائحات النور المتنسب صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا اللهم صل وسلم على عين ربنا ربنا يدعو يا قدر متعاون هاي المركز حب المالك وعنون الأقوال المتكلم بإصحاب الحق رباني عالباقي الأصائب لأرباح المريات اللي كلنا الأرض من الكل والأوان وعنون كلام الذي ملأت به كونك الحي لذلك مكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها ورش الحقائق عين المعرفة لكم سرعة قدام من عسكر اللهم صل وسلم على ثلاث الحق الحق الذي لا ظن بفضلك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا سلم على طلعة الحق الحق الكنز العظم بفرحك منك إليك حضر النور المدهنسم صلى الله عليه وعلى علي صلاة تعرفنا يا يا اللهم صل وسلم على الربانية وليقود للمتحققة حائطا بمركز الجميع المعاني وأنه للأبطال المتكبرين العالمين صاحب الحق رباني رحمة يا صاحب الدنيا الباهي المليات لكل متعرض من الكفر والأوان وأنه للكلام الذي ملأت فيه كونك الحائل ربنا المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي درج الله منها كنوز الحقائق عين المال الى قلب سراجك من بالعسكر اللهم صل وسلم على طلعة الحق الحق القدر العظم بفلدك منك اليك حضر النور المتنسم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا بها صلي وسلم على طريق الحق الحق قدر العظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقود لي والأهل القدير عائد بالمركز كل المحال وأن أن المتكبر العالمين صاحب الحق رباني علمك لا صاحب ضياء الباقي المريات لكل مدارس من البحور والكوان نورك الذي الذي ملكت به كونك الحي وابنة مكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها كنوز الحقائق عين المعاله لكم صراطك الطاهر بالاسكم اللهم صل وسلم على تلات الحق الحق العظيم بفضلك من كائن الى حتى للنور المتنسم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقودني متحققا العائلة بمركز الفهم والمعاد وانزل قائم تكلل في الحق رباني الباقي الاصلاح بذري الباقي المليات لكل متعرض من النور والنوان وانزل كلام الذي بلغت به كانك الحي الى بكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تتجلى منها ورسل حقائق عيد اللهم صل وسلم على طلعة الحق الحق الجزر العظم بفضلك منك إليك حتى للنور المتلسم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا بها يا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وهي قدر متحقق الأدل عائلة بمركز الحب والمعاني والنور الأكبر متكبر العالمين صاحب الحق رباني على الباقي الأصلاح والدنيا الباقي الميات لكل مدار من الكل والتوبة نورك الذي الذي ملأت به كونك الحائل بابنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها كنوز الحقائق عين المعارف الاكبر سرادك الدام الاسكر اللهم صل وسلم على دلالة الحق الحقيقة العظم في فلك منك إليك إحاطة للنور المتلسم صلى الله عليه وعلى علي صلاة تعرفنا بها اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وهي قدر متعارفة عين لمركز الفم والمال الحق رباني الباقي الأصيون الباقي المليات كل مدارس من البهر والنواني وأنزلك الله الذي ملأت به كونك الحائد باقنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي درج الله منها ورس الحق عين المعين الأقوام صراطك الطاهر العسكر اللهم صل وسلم على دلالة الحق الحق كثير العظم بفضلك إلى إليك حضر النور المتنسب صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وهي قدر متهاي أدل

منها أرز الحقائق عين الماء لقم سراد قطام العسكر اللهم صل وسلم على درجة الحق الحق القدر العظم بفضلك منك إليك هاتر النور المتلسم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا تيسر لبراء رحمة ربانية وهي قدر متحقق عائلة من مركز الهوي والمعاني وانظر الى قائل ارتكب العالمين صاحب الحق رباني الوقت صاحب الدنيا الباهي الماليات لكل مطارد من الكل والاوان وانظر الى الذي ملقت فيه خلق الحيدر بابنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي درج الله منها ورز حقائق عين الماء الأقم سرادق الدام الأسكم اللهم صل وسلم على دقة الحق الحق الكنز والظن بفضلك منك إليك إحاطة للنور المتلزم صلى الله عليه وعلى عليه صلاة تعرفنا إن الله وملائكته يصلون على النبي وسلموا تسليما صلى الله

مربينا ووالدنا ومولانا الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وارضاه انا بي امين ورضي الله عن شيخ تجاني الشريف من لنا اليه وصل كاشف الهمم من تعلق بالازيال هاتبه صب علينا الهي ابحر الاسم وكل من طلبوا صالح دواتنا عيرين من زائل ايمان كلهم اقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والردوان والكرم كذا أصولي وأحبابي أصولهم عممهم ربي تحميما بجلهك ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم ومن نؤدي من الأسكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم فاقبل لنا بهم يا فاري الهمم ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شرير التراكم فها نحن في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهدي لسبل مكارم صدقت على ما قلت في عود جيدنا عريبا كما في البرح يا خير الرحيم إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة على اتباع سنة في تراكم نعود عليها بالنواجز مثل إيه قال في الإساء نظرة هاشم فنادينا يا حالها الشيطان من كيده وصل بالإيمان وجرة السلطان والجيران يا ربنا ولفأة النيران وكل محدل عن الطاعات يا ربنا فاحد لنا الآجات وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا ومسر بدين والقراءة يا ربنا ومجيب شكاوى وثق بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الأوابي عضو بسم الله والمساني وعاية الكرسي المعاني وسورة الإخلاص التمجيد وفاز من مات مع التوحيد ومن دعا به على اليقين يجاب ما رام من المتين مجيب يا مجيب يا مجيب فاحبل دعاء وجل القريب نسألك تسليم بالقداء وصبر ورد البلاء بالمصطفى شافئي كل الحلق سبيل الله من تقي بالحق أسكى صلاة الله وتسليمي على الذي بشر بتسليمي وعلي وصحبي القرائي وتبين ثم أوليائي يا ربنا يا مالك الكونين إنا إله شار في الدارين أماتنا الله على دين نبي وخذ بشيخنا الإمام الطيب أماتنا الله على دين النبي وخذ بشيخنا الإمام الطيب أماتنا الله على دين النبي وخذ بشيخنا الإمام الطيب آمين آمين أستجب دعاءنا ولا تحيب سيدي رجاءنا أرجو الأمان يا ملا أمانة إلى لمن آمنه المولانا بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عليه حق حجره ومقداره العظيم اللهم إنا فيما توتقت لواك به بهما وانصر علينا لواك فاصرف أنا البلاء الحاري في الأرض ونازل من السماء فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كحاء يا عين حفايتنا حميم عين سين حمايتنا فسيكفيكم الله وهو السميع العليم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 Yeah.